Euh, il nous reste quelques minutes hein, euh, pour terminer cette émission beauté que euh, j'ai eu vraiment un plaisir à partager avec euh, Elie Charles Moreau. Alors, bi alors. non en fait euh, bi de toute façon amagul. ah Fesmanu Senghor. ah lu ko remplacer ba léegi. c'est-à-dire que festival mondial des arts nègres 66 woon festivalu Ablaye Wade malheureusement moo am.

Il a voulu jouer cette partition-là. Malheureusement, il a fait des, de mauvais castings. Le Festival mondial des arts nègres n'a pas commencé en 2011, 2012, machin chouette. Il a commencé le 15 février 2005. Mmh. Avec des moyens, yo xamni effectivement, bu doon compétence amoon na 2006 def nañ ko mu nekk parmi les souvenirs heureux qu'il laisserait. Mais Ablaye Wade à la limite a fait dans beaucoup de romantisme qui ont coûté très cher aux Sénégalais. il a eu toutes les bonnes volontés du monde mais quand on se trompe sur les hommes qu'il faut teguloo leen ci place yi nga xam ni nga leen war a teg de considération yoo xam ni kenn xamul lan la peut-être psycho-affective mm-hmm. il y a possibilité qu'on fasse des ratages leen rek moom a naqari s'il ne faut pas aller dans le sens de Latif qui dit que ni globalement il y a eu 96 milliards qui ont été dépensés dans ce festival dit mondial des arts nègres mais 70 rek 70 milliards tu sais pas Alice ce que ça c'est tout un la, la, le budget de de tout un septennat culturel mu des quatorze milliards. Mmh. c'est-à-dire que ministère de la culture huit milliards la doon am boo ko multiplié par sept cinquante la lay jox. mu des mhm. quatorze milliards. quatorze milliards yooyu réglé woon na infrastructurellement parlant. Mmh. Le, toutes les questions de la décentralisation. amul quatorze régions yi euh, du moins treize yi sax laay parce que malheureusement tout ne se passe qu'à Dakar. Mhm. treize régions yi. amoon na réellement ay infrastructures yoo xam ni dootuñu soxla ñuy récupérer ay tel kii kër comme ñuy wax ay roña sud dëkk machin suite à Saint-Louis et cetera mhm. daañu créer ay kii structure animateurs culturels yu taxaw si mbedd mi di yooxu daañu leen recruter et jusqu'à preuve du contraire on en serait à gagner beaucoup de temps mais je voudrais déjà qu'on revienne sur la lutte là très rapidement moi je voudrais déjà mhm. le ministre de la culture je l'ai vu la dernière fois au dernier combat pavoisé avec euh, euh, drapeau Haj Mansour mhm. Euh, pavoisé avec le ministre des sports mm-hmm. je suis peut-être sûr je ne suis pas entré dans leur tête ma dama wax ni fi mu nekk bootul ku ci nekk ngi yaakaar ni moom mooy mooy organiser mm-hmm. waaw culture dañuy faral lutte dañ daan waxtu lutte culture la il est possible maintenant de considérer que c'est du sport mm-hmm. je voudrais de la même manière que les gens certainement qui sponsorisent waa Orange xaw ma yu demee noonu que ñu xam ni déjà Youssou Ndour singulièrement qu'il n'a de temps en 100 jours, mhm. on aurait pu pour la fin de l'année budgétaire. Il y a des protocoles à signer euh, pour que nous jouions une partition réellement culturelle. participer ci culture bi. réellement waxuma waxu non entre autres. il y mhm. de protocoles même cette histoire de rajo bi ñu wax mais yooyu c'est des choses qu'on ne règle pas sur la place publique. Très bien alors euh, merci beaucoup Elie Charles Moreau je l'aime bien pour son franc-parler. non je sais. waaw waaw mais avec moi-même waaw loolu sa fam solo lu gars yi di wax ne ku lay jàpp na la jàpp ci dëgg. ah non bu lay bàyyi bàyyi la ci dëgg boo wéetee dëgg. ah leneen dina la ci fekk fu ma tëdd nelaw parce que je ne je ne mens pas aux gens. non du ci exactement du ci yow rek mais ci lépp. dëgg rek moom moo am solo parce que moo fi des ku la fekk na la fekk ci dëgg bay la ci dëgg. livre bi livre bi ma servir de référence. parce que c'est le Coran. <laughs> alors merci beaucoup dañuy xamal loolu. jërëjëf Elie Charles Moreau euh, aussi euh, téléspectateurs yi maa ngi leen sant di leen ah, euh, ci ànd bi ngeen ànd ak timit seen chaîne de télévision 2STV émission samedi mak on vous donne rendez-vous demain déjà ce soir avec plein de choses mais demain on va faire le focus ci lamb bi avec. vraiment des images exceptionnelles li nga xam ne dañ ko dem ci marraine bi xaar may ma jàgg que nous saluons au passage euh, nous saluons aussi les téléspectateurs qui regardent Dada Dada Guia Bersek Diour elle me dit. mais sa euh, émission bi dafa gàtt. deux heures de temps. non je doy na mais yow dinaa la woowaat <laughs> doy na ko mais dinaa la woowaat d'ailleurs coucou aussi à Dada qui nous regarde de manière sympathique une grande sœur qu'on et tout et donc je vous donne rendez-vous samedi prochain pour merci.